asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne yéen seetaan Dakar Buzz nuyuwaat nañ leen bu baax a baax amaat mbégte jàkkaarloo ak yéen nuñ koy defee saa su ne li ñuy waxtaanee rek bokk na ci ay doomu sénégalais yoo xam ne ci jamono ji ña nga am ay jafe-jafe te nekkee foofu ci réew Maroc ginnaaw ba ñu yuuxoo ba sonn kenn dégluwu leen tey nag ñuy woote waat wàllu di waxtaan ak askanu Sénégal rawatina suñu autorité yi le ngir rek ñu daal di jokkoo te saafara jafe yi nga xam ne euh, moom la ñu nekkee ñu jël nag ki nga xam ne euh, présentement euh, mi ngi foofu ci réewu Maroc alo salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si. waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la nga fàttali ñu tur bi. waaw delloo ziar man la Pape Fall maa ngi nii nekk Maroc. Mhm. d'accord fan euh, fan ngeen nekk ci Maroc. ñoo ngi Dakhla Dakhla. Dakhla ñaata ngeen ci jamono ji ñaata sénégalais. ñaata sénégalais moo fa nekk ci ñi nga xam dañoo bloqué depuis kañ ngeen nekk foofu le deux le deux le deux passé. le deux passé. oui. d' accord fan ngeen jóge woon ak euh, fan ngeen doon dem. waaw ñu ngi déparé woon euh, Ndar le vingt cinq passé. Mm lan départ woon daal quoi doon jëm Espagne. Mhm. kon ci gaal gi ngeen duggoon. waaw ci gaal gi lan duggoon. seen seen trajet naka la demee voyage bi ci biir gaal gi ak yooyu boo ci mënee dellu si waat tuuti rek. waa ñun euh, daanaka def nañ ay douze jours si biir géej gi ah. dem nañ ba suñ lekk jeex suñ naan jeex yooyu yëpp ah. après mhm. ñuy ñuy naan si ndoxu géej gi di di di lekk si géej gi essence bi jeex lépp jeex ñu dem ba xam ne si benn instant moom mm-hmm. jàppoon na ñun dut sax dundati jàppoon na dee rek mooy ñëw par benn boto benn bateau mm-hmm. marocain euh, daan ñuy romb rek gars yi gars yi kalaamit si kawam yéeg si biir boto bi mm-hmm. après bateau bi tourné daan ñuy ñëw lonk ñu indi ñu ba Maroc quoi mais dund gu métti la noonu dund léegi bi ngeen ñëwee Maroc bi ngeen ñëwee Maroc nan leen accueillir nan nan ngeen fa def waaw biñ ñëwee Maroc nii dalaloon nañu waaw instant bi biñ ñëwee feebar naan bari ñu feebar seen tànk yi yàqu seen yaram yi yàqu mais fajuñu mm. def ñu dara mais joxoon nañu fu nekk fi nekk tamit duusi baaxul lekk yi doon lekk daa primé pour l'instant nii moom arrêté nañ sax lekk yi doon lekk kenn lekkatul trois jours si tey lekku naanuñu gars yi ñu ngi fii tëdd sonn bu bëgg a dee état bu Sénégal benn kii ñu ngi fi contrat bi ko gisuñu ko mais est que yëg nañu ne yéen ngi foofu ci Maroc. waaye yëg nañ ko yëg nañ ko ndax ndax ndax sa boo jugee boo duggee si réew jàmbur man xam jàpp naa ne yow ban ban fi duggee ban xëy suba rek la yëg ne ñun ñun fi am na benn waaye bu nekk fii boo xam ne si. amul benn autorité bu fa ñëw nemmeeku leen. Mhm. waaw. léegi ba defar photo yi ne. yaa ngi wax léegi euh, ci vendredi bii nii nii la trois bii la ñu waxoon si ngeeni i si ngeen i embarqué dem Sénégal. Mhm. démb. Mhm. mu waxaan ñu Euh, lool amatul pour l'instant ni moom seen wax sax justul quoi mm-hmm. te naari nee ñun fi nekk nii dañ koy génn quoi dañ ñu génnee ñu leen boo leen génnee fu ñu da ngeen di génn ngeen dem sa biti mais fii muntu nee na yow mm-hmm. d'accord yaa ngi wax léegi ne dafa am ñu feebar comme foto yi ngeen xam ne envoyé ngeen ko ñoom ay gaañu gaañu feebar boobu lan moo ko andi ak lan moo leen jot non loolu yàggaay bi si ndox bi la woon quoi ñi seen tànk def ay góom di bajji ak ndox géej bi doon lekk moo doon génnaat seen yaram bi am na ñoo xam si sax seen yaram yi doon nëb mhm. quoi seen tànk yi mooy lool quoi boo gisee sax am na ñu bari ñoo xam si nanguwuñ sax ñu vidéo leen moo tax moo tax waaye kon yëpp laay vidéo ma envoyé d'accord mais mooy loolu dëgg mhm. leen def ah, kenn fajuñu ci ci jamono ji li ñuy xeex li ñuy xeex suba ngeen di am weer foofu weer Maroc d'accord mais comme ci jamono ji gis nañu gaal goo xam ne doon dem Espagne comme yéen euh, fan yi passé ci Ndar géej xam naa war ngeen ko jot wala ngeen gis ko bu fekkee yéen a ngi eh, xool li nga xam ne euh, moom mooy information ci lu jëm ci émigration clandestine yooyu la yow nan nga ko jàngatee ginnaaw yow euh, jéem nga ko tenté te sottiwul. waaw loolu moom ñun moom ban ko déggee fii sax ñun ñëpp dañ koo méttilu ndax am na ñoo xam si suñuy copain lan ñoo xam si ñoo ngi si dañoo des si ndox mi am na ñu si génn ñun xam nañ leen bu baax. mais c'est que clandestin boo ko mhm. gisee ku am jom rek moo koy def ku amul jom doo ko def parce que Sénégal bu ñu waxantee dëgg dafa mhm. metti pour l'instant nii lépp a seer ñun ñu ngi fii ñu ngi suñ xool sax dafa jeex lépp a seer te waygaatee nga nekkaat à zéro bëgg waat jaayantewaat yor maire bi yor paa bi mooy loolu loolu tamit mooñ ci dugal mais du affaire rob mhm. bon clandestin képp ku koy def ku am jom la ku amul jom foofu ngay toog Sénégal di taxawaalu man moom dama leen di ñaanal yàlla ñu ñi ñi si yàlla yërëm leen xare leen àjjana ñi waaw mhm. ma leen encouragé rek ñu jaayante waat liggéey rek waaw mooy loolu mhm. mais yéen bi ngeen di dem est-ce que amul ñu des ci géej gi ci seen voyage bi ngeen xam ne kii parce que ñu wax dafa am ay risque ah, xam nga nga nekk ci gaal ak ah. guddi gi yu mel noonu lu nekk mën na cee xew waaw loola de ñu ne moom yàlla defal nañu sonn noonu trop trop trop trop trop laa la wax ñu sonn boo xam ne mënu ñëw jóg mais yàlla def na kenn déewu si moom waaw sant yàlla am nay xale am nay jigéen d'accord ñi nga xam ne ñoom nga nekkal kenn deewu si yàlla na lool xale yu am ñaata at quatre ans quatre nan la àndal seen papa wala seen yaay seen yaay ñi seen papa ñi seen yaay kon su ma la déggee ñi nekk foofu am na ci ay jigéen ñoo xam ne ñoo ngi cee bokkoon ñoo ngi fi ay jigéen ñoo ngi fi ñu ànd ak ñu est-ce que mën nañ ci wax ak kenn ah ñoom dañuy làqatu na wax dëgg fa yàlla parce que mooy loolu quoi ñu ngi fi mais boo soxloo mhm. vidéo yëpp man mën naa leen vidéo génne seen seen seen i euh, mees ak seen yëpp nga gis ko mais mooy lool dañuy bañ vidéo yi sax sànq dama leen dama yaakaar appel ñu toog fi ñu ñëpp ñu jël ñu appel vidéo mooy loolu waaw mais comme bu fekkee mën na am ku ci sànni ay kàddu rek comme dañuy làqatu tey feeñuñu mu def rek ah, témoignage bu dalal xelu ay mbokkam ak yooyu ah ñoom ñoo ñu si jàng ñoom ñoom mooy loolu parce que ñun ñii fii bu ñu duggee dëkk ba wuti lu lu lekk moom bu ndikkee dañ leen jox ñu lekk quoi ñu yalwaan jox leen ñu lekk nii. Mhm. moom ñu ngi si jàmm baax. lan ngeen fas yéene def jox nañ leen délai ne da ngeen di génn foofu. ñun fuy moom dañuy yalwaane parce que fii am na ñoo si sax dem nañ yalwaan pour pour tey bu ndikkee ñu lekk boo liggéey ñuy demaat dugg dëkk ba yalwaan par par dix dix koy def quoi dix mhm. personnes bu ñuy mu ndikee ñu seedoo gars yi leer naan mm-hmm. ay pain yu ay mburu yoo xam ne si mooy loolu bu subaa ñeneen ñi dem man suba sax man maa war a bokk si ñeer waaw mooy loolu mm-hmm. lan ngeen di ñaan autorité sénégalaises yi comme ça ñu jàppale leen ci seen jafe-jafe waaw ñu leen wax rek seen i doomu réew ñoo nekk fii ñun duñ ay duñ ay xoola Gambie lu gën a ñun lu ñu Gambie ñu fi ñëwandoo doon xoola Gambie ñun ñibbi nañ ñoom ñoo ñu ëpp fuuf mm-hmm. te Gambie xool ak Mauritanie xool ñoom te ñun sénégalais xoolal ba tey mënuñoo dem. Mm-hmm. billaahi wallaahi Gambie yi ñibbi nañ. yéen fa des kon ñoom ñun doo nga fi des. te Gambie yi ñoom gaal lan ñun ñu nekk gaal comme yéen te ñoom ban fi dikkee amuñu fi un mois ñu dem ñun ñu nekk fii doo nekk ay doomu mm-hmm. sénégalais ñu téye ñu fii suñ suñ état bi mooy loolu. ñu ñaan pour ñu jàppale pour ñu jàppale ñu ñëw ñu dellu si. ay doomu mm-hmm. sénégalais lan duñ ay ivoirien duñ dara fii ku fi teer ngay sa doom réew da lay sa sa sa sa état da lay jël yóbbu nga dem mais ñun sénégalais mooy loolu day am natt dëgg. Mhm. seen ambassade mu fi ñu ngi lay jaajëfal mhm, ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu bàyyi la nga wax sa dernier kàddu rek pour ñi nga xam ne ñoo lay seetaan. waaw maa ngi maa ngi nuyu sama mbokk sénégalais yi nekk foofu Sénégal di leen ziar wax leen seen i doomu réew ñu ngi fi Maroc sonn boobu nii instant bi nii ñu ngi mhm. nii euh, trois jours si tey barki alxuraan lekkunu naan dong la ñuy def ton ndox mi fii léegi mu jeex fi crise léegi nii ndox mi ñu doon jox sax ñëwul ñëwatul quoi téye nañ ko pour ñun naan den wax mm-hmm. képp ku fekkee yaa ngi may mm-hmm. wala ku may seetaan ngeen jàppale ñu euh, ku si ku si jege état bi nga wax ko say doomu réew ña nga fa mu jàppale ñu suñ mënee am lu ñu dimbalee tamit ñu dimbalee ñu ko pour ñu envoyé ñu ko lekk ay lu ñu naan foofu danga leen envoyé passeport ngeen jàppale ñu si mm-hmm. bilaa walaay dañoo ay sénégalais lan ñun ñëpp ay sénégalais lan xaaj bi ñu si ndar lan dëkk mais pare ngeen pour euh, ñibbisiwaat fii ci Sénégal. mu mel ne li nga xam ne yëpp euh, bëggoon na ko wax moom mi nga xam ne moom bokk na ci sénégalais yi nekk fii euh, ca Maroc te ak jàkkanteel ay jafe-jafe am na nag ci ay révélation yoo xam ne wax na ko muy ay jigéen ak i xale yi am 4 ans yoo xam ne présentement euh, ñoom ñoo nekk foofule ca frontière u Sénégal ak fi nga xam ne moom mooy Mauritanie ak ak Maroc kon ñi ngi ñaan ñoom autorité sénégalaises yi à que rek ñu jël disposition yu mat ba mun a saafara jafe-jafe yi nga xam ne seen doomu réew ñu ngi koy jànkonteel ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak Dakar. moo fi nekk gars yi mooy loolu wala mburu yi lay nekk mburu yu bon yi mburu yi ay mburu yi xam ne si mooy loolu mbali yi sax mooy loolu moo fi des yi nii tëdd fii gars yi lekk ñun naan ñu gars yi mooy lool fii ak ñi nekk suuf di xool ay yii lañu lekk yii ay pot kooku yii yii man na dëkkuñu Sénégal gars yi. billaahi amuñu lu lekk. lii bu jeexee échange mooy loolu. waaw échange lool lañ ci loolu ci jàpp rek. yeneen gars yi ñu suuf ni ñu suuf sax ñu suuf waaw am nga xam si ñoom ñu ngi si dëkk ba moom di yalwaane gars yi bu ndikkee ñoo jox lu lekk. waaw nu mu a jàllee rek dana jàpp.